tey jii dañu dajaloo fii pour euh, lancer li nga xam ne tey moom bëgg a mobiliser dans le cadre de l'opération opération Fendi mooy ci plan Orsec bi plan Orsec bi déclenché nañ ko ñu ngi ci liggéey boobu ba léegi mais tey jii dafa am des moyens supplémentaires yoo xam ni nguur gi euh, teg na ko suñu loxo euh, ki nga xam ni président di njiitu réew mi joxe instruction

en plus de ces camions hydrocureurs am na ay camions yi nga xam ay engins lourds la ay tractopelles ay bennes, qui nga également dina renforcer le dispositif gisul leen ko parce que xëy na taw bi perturbé notre programme Euh, nous ñu bu ñu tàmbalee liggéey am na ay moto pompe yi nga procédure d'acquisition bi en cours bu ko bu sottee ministère de l'intérieur dana ko teg suñu loxo ñu dugal ko ci gox

bu ñu pompé ba noppi service d'hygiène gis ngeen seen éléments yi ñu ngi taxaw ñoom bu soobee yàlla yokk nañu seeni produit pour que ñu ñuy def ay opération de saupoudrage Dakar yëpp nag du ñu wax gox bi bay mais Dakar yëpp la ñuy saupoudrer ca loolu dana commencer incha allah dès tey jii parce que poudre bi ak li muy àndal am nañ ko ba noppi produit bi taxaw na yemb na ca incha allah dinañ tàmbali liggéey bi volet santé bi am na lu nga xam ni.

donc mu nek 160 sumu ma jumul donc mu nek 160 millions enveloppe bu nga xamni ne à part la bu ñu jagleel structure de santé yi. bu ñu jógee ci lolu yëg ngeen yëpp cash transfert yi tàmbali na depuis alxamis defe naa ministre bi lancé nako lolu tam itam dafay continuer mi ngi wëy mi ngi wëy parce que foo dem euh, ci Dakar ak ci Sénégal yépp liggéeyu recensement ba bi ñu ngi continuer et bu ñu defee enquête bi xamni ki yelloo nako ñu jox ko 100000 francs wala 200000 francs en fonction de du degré de sinistre Ce li est sinistre yooyu seen bopp ñi nga xam ngi woon ci ndox bi dañ leen di génne foofu dugal leen euh, site de relogement temporaire benn ci site bi mi ngi jaxaay beneen ci site bi mi ngi Kër site defe naa sax fa lañ lancement cash transfert famille yooyu ñu yóbbu foofu bu ñu ñëwee dañ leen dugal ci ay euh, ay tentes yi nga avec l'aide de la protection civile ak sab ak euh, croix rouge dafa ay ay ay matla yu teud indi fa ay ventilateur parce que tante yi léeg day da fay tang indi fa ndox indi fa courant indi fa ay toilettes mobiles bu lolou weesoo itam ñu jàppale len ci walu restauration donc muy ndekki muy añ muy rer donc ñu assurer pendant un certain temps bu nga xamni japp nañ buñ fa eggee xeyna dinañ mëna delu sen sen kër yi euh, bu ñu bu ñu jógee ci ci wàllu boobu it ca foofa noonu ñu nekk def nañ fa poste médical avancé def nañ fa poste gendarmerie bu nga xam ne dafay nekk 24 euh, heures sur 24 pour veiller sur leur sécurité def nañ fa également benn comité d'accueil bu nga xam ni moom moo di accompagner donc euh, loolu itam mi ngi ci mi ngi ci package bi. xayma bi bu ñu ni tey jii affaire wàllu hydrocureur yi wàllu wàllu engin yi wàllu. Euh, matelas yeeg yoy mën nañ wax ni enveloppe bi bi ngi toll ci ay 300 millions jëm 350 mais en plus de cela wax naa leen léegi am na ay médicaments yu nga xam ni dañ koy jënd donc euh, au niveau de PNA lañ koy commandé loolu toll na ci ay 160 millions yu nga xam ni également day dem directement ci askan bi parce que buñ ko joxee centre santé yi poste santé yi jàpp nañ ni jox nañ ko askan bi te it mën naa yokk ni mën naa yokk dañuy tàmbali mais enveloppe bi mën na gën a ëpp loolu en fonction de réalité terrain bi en fonction de évolution taw bi parce que vous voyez aujourd'hui, ji ñoo ngi dem di pomper ji waaye gis ngeen mi ngi taw donc ça veut dire que ni euh, prévision la prévision que nga xam c'est ce dicter évolution bi mooy comportement terrain bi. tey ji mooy wax ak yéen fii ci région bu Dakar ñi nga que, ni bind nañ seen tur recensé leen ñu def déclaration de sinistre toll na ci juróom-ñaari junni yu teg ñetti téeméer maanaam 7300. mais nañ def ndànk ci chiffre boobu parce que mën nga mën nga jël chiffre boobu mu nekk déclaration mais nga dugg ci benn kër fekk na yem na ñett ñu nga xam ni def nañ déclaration donc cela veut dire que ñoom yàqule nañu waaye kër ga ñun la ñuy pare la ñuy comptabiliser léegi nag pour am une idée exacte stabiliser ko am na des enquêteurs yu nga xam ni ñoom bu ñu leen joxee liste bi dañuy dem fekki borom kër yooyu buñu xolé nak ñu def liñuy wax euh ñu ñu def toilettage fichier bi exactement ñi nga xamni tay ñom lañu wara jox euh, jox cash transfert yi ñaat lañu toll mais dal li ñu jot comme déclaration moom tollu na ci 7358.